آله حق قدر المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتي لما أغلق والقاتم لما قناصر العقل العقل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى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

Ela Dala Hare سنارا والمختار فترى مفد الوصلية أوخى ولا البتا فإني من إهوى بحق صفاته برغم حسود أو مناول لنا بتا بين قد أخبرته حتى أراني كنته وربي لم يخلوه مكانا ولا وقتا فجاورت طه أحمد البدر ناصر وجاوره شعري وجاورني بيتا بدالي مخياء هباني وصاله ومن على سر الموس تبا أكسرا سمتا عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبنا عمر والوقت والبيت لا إلا الله لا إله إلا الله آسفها فأنت بوصفها غبير أجل عندي بأوصافها علم صفاء ولا ماء ولطف ولا خون ونور ولا نارنا وروح ولا جسم تقدم كل كائنات حديثها غديم ولا سكلنا هناك ولا رسم أي أولا يا آخرا وهو ظاهر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 على إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتي لما أخلق والقاتل لما سبق ناصر الاقبلاق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم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 ci xaal bii ñu toll mooy lan place bii nga xam ne dëgg-dëgg toujours ni ma koy wax waxee rek place la boo xam ne nii mu ngi bokk ci xurumu sunu borom yi subhaanahu wa taala bu yàlla sellal waaye place bu yàlla barkeel yàlla ñu yàlla taas ci barke boobu yaa bi palaasu Maulana Cheikh al Islam Baye radiyallahu dëgg-dëgg palaas bi ku yàlla dimbala rek moo fi ñëw waaye ko àndut ak ndimbalal yàlla mënoo fi ñëw dëgg-dëgg ñi fi teew maa ngi leen di ndokkeel ñëwaat nañ comme nañ ko daan defee di ñaan yàlla ñu yàgg koy def muy ñëw ziyaara si suñu sëriñ sunu yaakaar ci yàlla alxalifa Cheikh Ibrahim Ba xalifatu Baye Niass fii ci Ndoukoumane yal na yàlla gën koo dëgëral gën koy dimbale comme nañ ko daan defee rek ñëwaat nañ fas yéene commencé jataay bi waaye di njëkk a barkeloo ci alquranul karim di jox taalib Ali Darame nga xam ne mi ngi jàng fii ci Mahad Alhaji Muaz Ba Ngodi Ba waaw ci daara alas baabu ba la génnee waaye mi ngi ci maat alaaji Muaz Ba di continuer njàngam ñu ngi koy ñaanal yàlla moom itamit yàlla gën koo dëgëral incha allah kon dañ koy jox mu ubbi jataay bi suñu paree jox al imam Aboubacar Ba noonu lañ koy defee ba incha allah bismillah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 باب واحد وادخلوا من أبواب وادخلوا من أبواب متفرقة وما إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ولما دخلوا من حيث أمرهم فقداها بسم فتردد ولستوف يعطيك ربك فتردد فلا تقحر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم الفاتحة ما شاء الله Cheikh Ali Darame yal na yàlla gën laa dëgëral waaye yal na yàlla gën lay barkeel yaram macha allah yal na nga àgg fi nga jëm euh, ci loolu rek kon dañuy jox kàddu gi imaamul hadarati imaam Aboubacar Ba ñu ngi koy jox kàddu gi ayadahu llahu nas لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين di nuyu ñëpp nuyoo bi gën a tedd ci nuyoo yi mooy asalaamualeykum wa rahmatullah mu làmboo ziyaara ak ndokkeel dalee nuyoo bi ci sëriñ bi al xalifa xalifa Maolana Cheikh Baye radiallahu anhu ci Ndoukoumane xalifa Cheikh Ibrahim Ba ayadahu llahu wa nasara wa zaadahu sharafan wa fayda di ndokkeel ñépp di leen nuyu ci bés bu tedd bii ci bërëb bu tedd bii waaye ci jaami yàlla yu tedd yii teew teewaay boo xam ne bu rafet la teewaayu mbuggeel teewaayu ziyaara ziyaaratu istimdaad bil Mahabbati, Niko oustaz Malik, waxe borom taxaway bu rafet bobu kon sëriñ bi mbok yaangi ni ñepp ñew nañ and ak mbëggeel di ziyaara gannaaw buñ defé ben ponk ci ponki l'islam yi jurom muy chahru ramadan al mubarak te xam nañ ne moos ba muy jeex rek feet la ñu ñëw ci sa kanam sukk suñuy wóom di beesal suñu mbëggeel sunu xàndoo ci yàlla di la ngir yàlla di beesalit suñu mbëggeel ndax xam nañ ne buñ teewee fii buñ fi jógee koo fekk ñu ngi dolleeku xam-xam ñu ngi dolleeku ci bépp anam ay faju xaajo yépp kon teew bi rafet na waaye teewin bi moo ko gën a rafetal daarul muhibbin ajma wa ak temps ñu ngi nii teew ak mboolem sopp yi ak dëkkandoor yi kon yal na yalla nangul ñu yal nañu yalla may barke may ñu xobol ak tawfiq doolu ñu mbeggel fiñ koy defee ni nak jar nako oustaz malik wax nako ndax bërepp la ci bi yalla yi te yalla nee na maggal bërepp bi yalla yi wala nga maggal ñu yalla mën na lu ak ragal yalla la ko ci xol ci ben ba kon loolu li muy tegtale mooy dëgg-dëgg ñu bëgg jëriñu ñëw nañ nag fu am fu fuñ mën a jariñoo yal nañ jëriñu ñu ngi koy yaakaar yaakaar ak yaqiin yal nañu ko yàlla defal dañu guddal sunu wax fi mu ne ñëpp ñu ngi nekk sëriñ bi ah mu def nam daan def ñu jëlee ko nañ ko daan jëlee yóbbuwaale ko jëriñoo ko yal na ñëpp ñi ànd ak yiw waaye ñi fi desit ànd ak yiw ba القابل انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی ماشاء یعنی اللہ یعنی سیخ بابا خن ممایو نے مسلم معیار منہ کو یوگے کہ bokki taalibe yi waaye rawatina ci yow mu ne bis bi dëgg-dëgg bu ko utee rek am na lu ko métti mu ne bis ni ki tey monsieur le maire dafa ànd ak euh, monsieur le maire bu Kaffrine mooy ministère Abdoulaye Sidi Sow tey lay def passance di service mu dem fekkee ji ko nee na incha allah waaye yeneen programme yi des ba Saloum Diané incha allah fas na yéene ànd koog yow. mu ne nga ñaanal ko yàlla yàlla defal leen tawfiq ci seen liggéey ba kon ci loolu rek incha allahu dañuy jox Seydi Moustapha Bachir Ba incha allahu yàlla dimbale ko moom itamit mu ànd ak mu àndal mu àggal liggéey الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نيان ديغتي مولانا الخليفه الشيخ ابراهيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأولين والآخرين سيد العالمين رحمة العالمين مدد العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الختم الولاية باب الولاية مولانا شيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن وارث سرهما بالإطلاق أبي الإساق مولانا شيخ إبراهيم مولانا شيخ عبد الله ويد الله تام عن الأجداد المحبين الكرام الأدباء مولانا شعلا جسام جاني مولانا شعلا جماس مولانا شعلا بابو معه جميعا نجي نيو سرين بي نجي ko ziyaara ci bis bu màgg bi nga xam ne bisu sant yàlla la waaye naatiqu mi suñ bay alhaji Souleymane Ba imaam alhaji Maas Ba ak mboolem kilifaay xadratu daaral muhibin ñi teew ci zahir ak ñi fàddu ci zahir waaye ñi ngi nuyu itam mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne ñëw nañ tey bis bu màgg bi bàyyee ci gox yi fasante ko ci xadratu daaral muhibin waaye ñi nga xamoon ne ñi nga xam ne amoon nañ yéen ay ñëw bëggoon nañuy ñëw te yàlla dogalu ko ci saayir itam ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ziare pàkk bi ñu toog bërëb bii nga xam ne nit mun naa wax ne mooy aéroport Maulana Cheikh Ibrahim Niass Ndoukoumaan pàkk bii mooy wàccuwaayu Maulana Cheikh Ibrahim Niass Ndoukoumaan pàkk bii mooy pàkk boo xam ne lépp lu yàllay joxe ci madadu Mawlana Cheikh Ibrahim ci ndukumaan amul sikk ci pàkk bi lay sotteeku fu may dem soo fay dem kon ñu ngi siyaare pàkk bi di siyaare ñooñ pàkk bi ñi nga xam ne jiitu woon nañ fi doon daagu ci pàkk bi di Mawlana Cheikh Alhaji Saloum Diané ñu ngi siyaare maqaamam waaye suñ maam Cheikh Alhaji Maas mi nga xam ne bàyyee ko seedeel ne aarif la faani la boo demee ci lettre ba bi bàyyi da wax ma Alhaji Maas wax na ne al aariful faani kon borom maqaam boobu nga xam ne sëriñam moo ko seedeel moo Cheikh Ibrahim Niass ñu ngi koy ziyaare ci bis bi waaye ñu ngi ziyaare ki yenn woon seen maqaama yi ñoom ñaar di mawlaana Cheikh Baw Ba radiyallahu taala anhu nga xam ne bàyyee ko defaral boppam wóolu ko ci mboolem may yoo xam ne mu ngi koy joxe moom mawlaana Cheikh Ibrahima Niass liggéeyloo ko ci liggéey yoo xam ne duut ku ne la ko bàyyi da liggéeyloo xoolu ko lool def ci moom li mu def ci moyan ko ñaari maqaama yi muy maqaamam Cheikh Alaaji Sam Ndiané maqaamam Cheikh Alaaji Maas ñu ngi koy ziyaare mu Mawlaana naa Alaaji Baabu Ba nga xam ne jëmm la yoon joo xam ne dafa selloon ci zahir sell ci baatin sell ci baatini baatin ba boo ne ko jàkk sax te xamula ko sax rek sa xol dana ko bëgg ni mu woon ci baatin dafa feeñoon ci zahiram set wecc loolu maqaamaam la mooy Mawlana Cheikh Laaj Baabu Ba borom may gu rëy gi borom bët bu sori bi ki Mawlana Cheikh Ibrahim wóolu woon ci mbiram yépp ñu ngi koy ziyaar di ziyaare góor ñu baax ñi àndoon ak Mawlana Cheikh Laaj Baabu Ba suñ bàyyi Cheikh Tafsir Ahmad Ba nga xam ne kenn xamul koo gën ci kaw suuf nit ku sell ku baax ku ragal yàlla ku bëggal mbooleem bindee fi jàmm ñu ngi koy ziyaare di ziyaare am na ndamba suñ bàyyi Cheikh Alaaji Aliyun Maas Ba nit ku ñàkk caaxaan nga nit ku dëggu gi ci yàlla ga nga xam ne bi Mawlana Cheikh bi ñëwee joxoñ Cheikh Alaaji Baaw Ba ñoom ñooñu Cheikh Alaaji Tafsir Ahmad Ba Cheikh Alaaji Aliyun Ba ak seeni àndandoor seeni doomi bàyyi ak ñoom ñëpp xoolatuñ ne Cheikh Laay Baaba suñ maga wala suñ doomi bàyyi waaye dañ ko doon xoolee kii mooy Mawlana Cheikh Ibrahima ci ñun topp ko topp bu rafet dégg ndigalam lépp lu mu digle rek ca lañ nekk lépp lu mu tere kenn du leen ci gisati nekkoon ay taalibe koo ci daan waxal ki ñoom rek bu ne sëriñ bi rek xamal ne Cheikh Laay Baaba lañ ci jublu kuñ jox askaaru tarbiya ba sa sayru ci yàlla mat dañ lay xamal ne ñun sa mbokk taalibe lañ waaye sëriñ bi mooy Cheikh Laaj Ba noonu lañ doon yare mag ñi yàlla rek lañ bëggoon yàlla rek lañ doon xeñtu yàlla rek lañ doon wut moo tax seen ànd gi ànd gu sell la dama gis ci suñ bàyyi alaaj Aliou ay sa yoo xam ne Maolana Cheikh Laaj Baba joxoon na ko ko mu denc ko ba dem rafiqul aala nam ko ko joxe woon noonu la ko dencee keroog ba ma ko gisee ma ne mag ñi kenn gënu leen a sell na selaay baabu mi nga xam ne bàyyee ko joxoñ jox ko ndigal ci lépp muy xalifa bàyyi nga xam ne moo sañale moo saña dindi lépp lu bàyyee joxe ci xadaratu daaral muhibbin ci moom la koy sotti mu jël ay lijaasa jox ko ay mbokkam ne leen bu ngeen yaree nit ba óolu ko ci yàlla jox leen ko lijaas ma ne ndaw ku baax waaye mbokkam yi itam ñoom uutu ñu dul yàlla utu ak jamono ji léegi lijaasa yooyu ñoom itam dañ koo denc ne chalaaj baaw mi bàyyi joxañ muy xalifa bàyyi moom rek moo sañ a def moo sañ a dindi lijaasa yi dañ ko mos a joxe ma ne uta naag li xew ci jamono ji léegi loolu yépp da ngay ne mag ñi yalla rek moo taxoon ñi ànd yalla rek lañ bëggoon and ak ne lo rek kay jëri and boy and rek andal ngir yalla boy bëgg bëggal ngir yalla la chaque ja nga jëri waye lepp lo bëgg ci biir yalla lu dul yalla ndem lu dul yalla amna lolu ki daay la rek daf lay tardel kon nañ jëlluwaat ci jikkoy mag ñooñu nañ jëlluwaat ci yaram mag ñooñu nga xam ne ñoom nekkuñu woon ci dara lu dul yari Mawlana Cheikh Ibrahim lépp loo gis bàyyi bind ci téeréem yi boo xoolee Cheikh Lay Baba ak ñu mu àndoon toon ak ci ñoo rek lay nay gis li ngay gis ci téere bàyyi ak li ngay dégg ci kàddu yi bàyyi ci kaset yi booy ñëwee moom rek ngay gis ci Cheikh Lay ba moom gis moom ngay gis ci ay àndandooram loolu nag dëgg-dëgg daaral ma fi bind fu mu yegg rek loolu moo ko fa yeggal mbir mi lépp ci sella rek la nekk mbiram mi ni mu ko rëddee tegee ko ko rek ku bëgg jëriñu foofu rek ci ngay aw te wax na ko wax na ne wa kullu man yuridu al intifaa bina wala budda an yaxfada ma yaxdanu mina nasman wa nasra képp koo xam ne yaa ngi ànd ak man bëgg jëriñu fokk ngay bàyyi xel samay dénkaane ak sama yar ak sama melokaan nga mel ko te ne ne taalibe yi ñi nga xam ne ñooy sama taalibe mooy ñi nga xam ne li ma nekk ma ak sama taalibe ji lañ nekk loolu nak deug deug moy siru daral muhibbina moy la bay waxone bu yonent bi doxé ma dox su taxawé ma taxaw deug deug loolu ñu ngi sante yàlla di ziyaare bu baax a baax a baax xam naa Seydi kàddu yi daf ñuy bet lool lu ci topé rek nga xamné madalu sëriñ bi la lu ci manké rek nga xamné jaamu xew bi la kàddu bet bett lool ñu ngi ziyaare ñep ñaan yàlla yàlla ñu ko téye déen sëriñ bi yàlla yàlla do li ko tawfiix barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass yaakaar naa ne keroog carte générale bi ñëpp kontaan nañ bi waa ji waxee bi sëriñ bi yegsee ci place ci place bi dafa wax ne tey la ñuy dalal ki dàqa wax ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass yaakaar naa ne alam bi yëngu na lool soppi yëpp dig nañ loolu dëgg-dëgg sant yàlla la ñu ngi ci ndokkeel sëriñ bi di ci ndokkeel mboolem daaral Mouhibine ñu ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Seydi Moustapha macha allah jërëjëf lépp man na dara manqué jub na rafet na baax yàlla na nga ko yàgg di def yàlla. macha allah xam naa di wax rek ne eh, ki nga xam ne nii mooy eh, oustaz Babacar Thiam nga xam ne moo yore faydatu tijaan yi moom lañ jàkkaarloo nii moo yore faydatu tijaan yi waaye ànd ak rakkam di bàyyi alaaji Thiam moom itamit mu indi siit mi dina bàyyi waaye turbine mi dina bàyyi. waaye ñu ñëw fekk fi ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñoom itamit kenn demu ñu des mooy wilaan wisu nga xam ne Malick Wilane moo ko yore hélas Malick Wilane waaye dëgg-dëgg suñu bos suñu kos di Cheikh mbay Babacar Cissé moom moo ànd moo ñëw ak ah, moom mbay Mbaye Cissé mooy ñëw ak TV Daarul Muhibbina Daarul Muhibbina TV waaye itam RTS ñëw na moom itamit xàmme nañ ko ci balaa ci place bi dëgg-dëgg am na itte yal na yàlla barkeel leen di wax ne itamit ne Thierno Habibou Diallo moom it mu nga jogee ba Kaffrine waaye ci di ndawal Thierno Moustapha jàll kon ñu ngi siyaare mbooleem soppe yi fi nekk waaye di def noonu rek di jox kàddu gi Cheikh Alhaji Omar Faye jógee ba Medina Baye ñëw fii kon yaa Alhaji alkalima bayna yaday asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu kilifa yëpp xam kàddu gi bett waaye man na ma ndax waxtu bu may ñëw fii ci ñëw pour taataan waaye jël kàddu ñu ngi ndokkeel sëriñ bu baax di nuyu xel sama nijaay yi fi nekk yëpp ak sama sang yi sama ñëpp. ñu ngi leen nuyu di leen di wax ne ci kàddu yu gàtt rek ñu ngi ndokkeel Ngodiba ñi fi teew ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ndax ci jamono ji ñu toll ci waxtu bi ñu tollu amul fenn foo xam ne nit nekk na fa mun faa jëlee lu ëpp li war a mën a jëlee ci bési tay bii loolu moom lu ma leer la kon nag képp ku fi teew rek ñu ngi lay ndokkeel ci boole gi la yàlla boole ci jotaay bii ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa waxoon ne su ngeen rombee dëru aljana yi na ngeen ko ci wicc ci meññeent bi ñu ne ko lan mooy dëru aljanna yaa rasulallah mën a xelaxu zikri aw kama te foog naa ne géewu zikkar ci lañ nekk nii kon dër la ci dëru aljana yi yonent bi wax ne sallallahu alayhi wa sallam am na yenn barab ci barab yi su fa ni teewee la gën a néew ci moom mooy ne seet na wécc ci bàkkaar ndax xadis yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax xuqat mahabati fii lam ci tënk lépp mën na ci jotaay bii ñoo xam ne dañoo bëggante ngir yàlla di ziyaarewante ngir yàlla di toogaalante ngir yàlla di dundale seen alal ngir yàlla bëggante ngir yàlla te loolu rek moo fi nekk fi may daaneelee mooy maa ngi ndokkeel sëriñ bi Cheikh Ibrahim Ba alxalifa di ko ñaanal yàlla mi mën a sàmm yal ko yàlla sàmm yàlla mi mën a wut yàlla na ko yàlla wut yàlla mi mën a dimbale yàlla na ko yàlla dimbale waaye képp ku koy dimbale it ñu ngi lay ñaanal yàlla bokk ci nga bokk ci ndimbal loolu mu am di wax ne nit dafay xam li mu am nit dafay puukarewoo lim am nit dafay tiitaroo lim am Cheikh Moustapha wax na léegi li am keroog ci quartier général bi maa ngi jógee Banjul barki démb groupe ba fa nekk boo xam ne nii ci groupe bi suñu maam Cheikh Omar Faye Moustapha mënu ma damaa gis ne kii boroom xam-xam la rek ma jël li muy wax lépp di ko dugal ci groupe bi te xaw ma ne sax waxtaan wi danañ ci tudd Cheikh Omar Faye mu ne moom imaam mu taxaw mu ne moom ñun daanaka ñoo moom jotaay bi ndax wax yu rafet yi nga xam ne wax na ci keneen mu ne ma kàddu gi ma nekk ko waaw ma anglais yi ñun ñoo moom quartier général bi yàgg na fa am waaye ñu ngi koy doog a dégg ni ko déggee nii tey li ma ci jeexale mooy ne bés boobu bépp jigéen rek bëggoon nga wax ne kii man maay yaayam waaye góor gu ne it bëggoon nga wax ne doom ji man may baayam waaye loolu yëpp nag. yàlla moom day mayee nu mu ko neexee ndukumaan gii la ko yàlla sédd xaasatan Kaffrine xaasatan Ngodiba gi kon nag loolu bés boobu yéen la yàlla defal ngeen teg ko drapeau buy folete ci kaw àddina bi wallahi bés boobu Ngodiba moo ko drapeau bi nga xam ne mooy wëndeelu ci kaw suuf kon nag nangeen xam ne kii ngeen am kan la lan la ngeen fonk ko jàpp ko téye ko gis ngeen bési démb gi ku nekk lay yëre yi gën a rafet ci yow moom nga génne pour sol ko ngir fonk gi nga fonk bés bi nga xam ne mooy bési korité te bañ taxawee ba mu jegee ci kanam ñëpp xool sedd na ñu ngi koy ndokkeel di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dimbale yàlla ko yàlla wut yàlla na ko yàlla aar maa ngi ñaan ci fii ñu toll ci nga xam ne nii suma doomi nijaay la te billaahi lépp lu ma ko ñaanal yàlla dina nangu képp ku ko xaar yàlla nga xaddi képp ku ko xaar yàlla nga xaddi dalee ci man mii di ko ñaanal loolu képp ku ko xaar yàlla nga xaddi yàlla na jëm ca kanam yàlla na ko yàlla téyal boppam yàlla bu mu jàng yàlla bu mu daanu yàlla boo benn cëram ayib yàlla boo bu mu fattu yàlla bu ko dara sonal lépp lu nar jëm si ci moom yàlla na ko sama borom aaral boppam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Tidiane barke sama yaay Cheikh Hadji Babou allahumma salli ala Seydina Muhammad wa sallim jërëjëf Cheikh El Hadji Omar Faye macha allah kaddu waaye yàlla na ko xool xoj itam téye cent pour cent bi jaay rasulullah say Omar ci quartier général bi dafa am benn waay boo xamante ni dafa ñëw ba sama néeg su ma ko waxoon sax kenn ñu weddi ko waaye dafa ñëw ba sama néeg mu taanu ci sama lal bi ne ma li ma tax a jógee ko fu ma dëkk ñëw ba fii dinaa la ko wax mooy Cheikh Ibrahima Ba ba ma ko gisee rek la la sama xel daj bi mu waxee ba pare mu ne sama doom ñëw ci man ne ma bàyyi mu ne ah dañ ne Barham Diop dee na mu ne ah mu ne ko Barham Diop deewul Barham Diop ngi nii Cheikh Omar li nga ñaanal sëñ bi yal na ko yàlla defal yàlla loolu barke bàyyi kon ci loolu rek dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne moom itamit wax dëgg yàlla ku nekk xam na taxawaayam ci pay bi waaye ci xadara bi waaye lam nekkee Kaffrine ci doxal ci lépp bokk ci association imam yi ba pare nekk président Ansaarud-Din ca Kaffrine muy imam الأساس آه، الحاج هادبة نجاكو كادب بسم الله الحمد لله رب العالمين من يبني بقوة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين. gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci sangu-sang yi muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant maulana cheikh al islam al xaaji ibrahima ñas di gërëm suñuy waajur suñuy maam waaye di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jël nuyoo bu tedd boobu nuyoo bu sell boobu تك كوتي اللوخو كفي يلا الخليفة العالم العلامة صاحب الرحلات صاحب الحلقات صاحب الاجتماعات الواعس الكبير أيده الله ونصره خليفة دكمان Cheikh Ibrahim Ba yal na yàlla yokk sa fan ak sa wér sant yàlla bu baax ci bés bi daarul muhibbina lañ wax doy na ci rek arrusul alayhim salaatu salaam ku nekk am na garaat waaye sangu-sang yi moom bim ñëwee yàlla da ko def muy xabibullah muy soppeeb yàlla bi kon bu mawlaana cheikh al islam xaaj ibrahima ñas ñëwee ngodi ba tuddee leen daarul muhibbiina wallahi maqaama maqaamaat saaliya darajaat kubra li ahli ngodiba jamian ñu ngi leen ciy ndokkeel bu baax bés nag bu ñëwee lamu yello rek nañ ko ko jox deug la ziyara la waye nak dafa am lu xew moy dañu joge ci chehru ramadan al mubarak muy wéru mag wéru tedd muy chehru bo xamné da fay présenter iqrar bil ubudiyya saxal gi nga xamné dañ ci saxalé ne yàlla rek a yàlla mais am na ay jaam yoo xam ne yu sell la ñu ko gëm yàlla bi mu bindee xel ba pare def na ko aqbil fa aqbala mu ne ko mën anta wa man ana yow yaay kan man may kan xel na ko anta rabbul jalil yaay borom bu màgg bi wa ana abdu daif may jaam bi lott bi mu ne ko ma xalaqtu aazza binduma lu la gën a foor yow xel moo tax boo gisee ñeneen ñi jëfandikoo yeneen jëfandikoo rek da ngay xam ne amaguñu xel mu sell yal na yàlla mayee xel mu sell bu mu tourné wax nafsu ne ko aqbil falam yaqbil tourneel bakkan lànk yàlla mbugal ko ci safaraaw jahannama téeméeri at bi mu paree ne ko man anta wa ana yow yaay kan man may kan mu ne ko anta anta ana ana yow yaay yow man may man nga bakkan ni mu dëgëree bopp rek yow yaay yow man may yow yàlla dugalaat ko safara ci naarul juuci miata sanna safaraaw xiif la ko dugal téeméeri at ba mu ko ca dugalee ne ko man anta wa ana muneka anta rabbul jalil wa anna abdud daif yaay borom bu mag bi may jambu sel bi bokku na ci hikma bi nak yalla jël jami yalla yi tek len wer wi muy wer wo xamne weru man nañu wax ne atilele wala seminar la ñi xaj ko ci ñetti fan ñetti ñetti ñetti ñetti xaj atilele bu njëkk bi ñu ko tuddé maghfirah woor nañu maxfira bi mooy fukki fan yu njëkk yi yal nañu am maxfira min rabbil alamina yal nañu ko yàlla defal yaa rabbi ñu demaat ci deuxième atelier bi ñu tuddee ko fukki yoo xam ne raxma la jaami yàlla yi sell te nangu woon woor it def ko ba mu jeex yal na yàlla jox ñu attestation bu ñuy wax raxma yal nañu ko yàlla defal yaa rabbi ñu jógee ci demaat ci fukki yi ñu mujj yi nga xam ne mooy yatqun fi naar yi yatqun min a naar kon mi ngi mel ni bi ñu paree fukki yi la ca des rek mooy ñu jox ñu laisser passer pour dugg aljanna ñun ñi fi nekk ñëpp yàlla nañ dugg aljanna yaa rabbi bu ñuy dugg aljanna nag ñu ngi dugg ci baabu rayaan nga xam ne kenn du fa duggee lu mooy ñi doon woor kon yaakaar naa jaami yàlla yii aju ci daarul muhibbin xaw xawma kan mooy bañ a woor weeru koor xanaa ko am ngànt waaye képp ko aju ci daarul na yaakaar naa ne buñ na weer wi na woor rek ngay def kon ñetti attestation yooyu ak laissez-passer aljanna boobu yal na ko yàlla defal daarul muhibbin te am nañ ci yaqin ne yàlla dina ko def su ko defee nag ñi tourné rek di wàccee kilifa gi ci palaasam xam nga bi ñu jógee ci kër gi di ñëw bu ma joxut misaal ci keneen it ci ndaw kandaay yi mbaa jàll jàll yi am naa droit joxe misaal ci sama bopp xanaa fauteuil bu xonq bii bi ñuy jógee ci kër gi su fekkoon dama ne ñamaas ñamaas ñëw ci fauteuil bu xonq bii ñëpp danañu wax ne eh waa kii kat xamut boppam loolu la ñuy wax ki xamut boppam waaye ki ci war a toog bu mu ci toogee ñepp xam nañ ne ki ci wara tok tok na ci kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ma aisha radiyallahu anha dafa am ku ko gané si mu ñew jox ko ay dammitu mburu mu lek bim ci kenen na assalamu alaykum aisha entré ko andil ko assiette bi jox ko mu lek ba sour sa way ne waaw aisha lu xew ki ñew nga jox ko ay daggiti mburu ki ñew nga jox ko bi mu lek ba sour mu ne hakaza amarani rasulullah nii la ma ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sante anzilu naasa manasilahum wàccee leen nit ñi seen palaas moo tax ñun ñëpp nañu bokk ñu nangu wàcce borom palaas bi ci palaasam du wàññi dara xam nga tey su fekkoon dëkk yi ñu wër yëpp dañ ne am nañ sëriñ ba mu des ngodi ba yaakaar naa danañu naqari lool waaye buñ nee sëriñ ci ndukumaan ñu ne kan mooy seen sëriñ wala kan mooy seen xalifa ñene ne Cheikh Ibrahima Ba yaakaar naa fu nit mën a siggee waa ngodi ba danañu mën a sigg ci xam-xam bi ci lewet gi ci mbaax gi ci tournée yi ci jëriñ jaami yàlla yi macha allah jaami yàlla yi ku leen considere na jaami yàlla nga da mën a def ci jaami yàlla yi dara waaye ku leen considéré ku dara doo mën a def ci ñoom dara moom nag considere na jaami yàlla yi dara lañ moo tax mu ngi def ci ñoom dara bi chef ramadan yu commencé rek yaakaar naa ne musaada al ghizaiya bi ñëw jaar ci loxoom teel na ko yàlla gën a yokk yaare bi keroog dama dégg ci moom mu wax ci wax yu solo yal na nekk dëkku ni mu nekkee dëkku xam-xam dëkku wilaaya yal na ko nekkee dëkku boo xam ne dëkku jëggukaayu njëriñ la ci àddina bi yal na la ko yàlla defal yaara bi soo demee ci daje yi ñu kontaan soo demee ci rajo yi ñu kontaan boo demee ci télévision yi ñu kontaan benn mbooloo moo mën a dem ba ñu gëstoo gis la képp ko aju daarul muhibbina di nga mën a siggi doo sëgg mukk te doo rus yàlla bu ñu rus àddina yàlla bu ñu rus àllaaxira sering bi ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay entourage bi damay faral di wax ne man ma ngi ñaan yalla yalla may ma ci lima yalla may ak lammeñu yi may waxe buma wax mukk lo xamne ne bëgg na ci xoss jaam yalla yi yalla neena na wa xuulu li husnan xusnan waxalal nit ñi lu baax ba mu fasir ba ma demee Dakar di wax di wax dekk ndor ya dëkkandoor ya dëkkandooram dëkkandooram ko eh taxawal mu mu ñëw compte 100000 francs ne ko am damaa bëgg soo demee nga joxal ma cent mille francs yi sa dëkkandoor bu baax boobu waaye lii mooy nit ku dajale nit ñi fexeel nga wax loo xam ne dana attiré daam yàlla yëpp ku bañoon sax gën a bëgg kii Sowetaas la ci dëkk bi su jafe-jafe amee moom mooy taxaw mooy lijjanti am na ñu ko rus am na branloo waxuma sax diggante moog yàlla waaye diggante moog jaami yàlla yi rek macha allah fu mu fa taxaw fëgg rek buntu mën naa ubbeeku kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla gën a ubbi port yi mais nag li ko gën a am solo mooy wér gi yaram gi ak fan wu gudd gi ak xel mu sell mi yàlla na la ko yàlla bàyyee maa ngi bëgg a guddal gërëm nag euh, sama papa Mahmoud mi nga xam ne moom la ma yàlla boole ci Kaffrine te muy ko sell nekk taajir amin nekk imam moxlis waye duma faté ki nga xamné outal utal naa ko tur woo xam nit ñi sax faale wuñ ko waye nak dama ko tuddé luqmanul usrati moy annaatiqu rasmi al abu suleyman ba ayadahu llah wa nasra wa kadhalika al imam annaasix cheikh abou bakar allazi naaba abahu alkarim الشيخ تفسير أحمد به ومن في معناهم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا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 أكبر الله ku tedd ku baax dëkk Kaffrine bokk ci daayira ba waaye doon porte parole daayira ba Cheikh Alaaji Baabu sunu sëriñ rahimahullah daan jógee fii di dem di seeti papam di ko ñaanal waaye moo doon koo xam ne kilifa la defe naa mutuelle de yi nekk département Kaffrine mooy seen njiit Seydi bu ma juumee jubanti ma waaye ànd ak mbokkam Sadio Ka Thial ak Imam Bara Sadio Ka moom foo ne sëriñ bi rek mu jooy kon dañuy jox Moussa Ndaw kàddu gi musaa ni ci macha allah ñu koy ñaanal yàlla Seydi Moussa yu tamit ci barke Baye Niass kon ci noonu rek euh, dañuy continuer kàddu gi waaye di wax rek ne euh, sëñ bi yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal di di ñaanal ñi nga xam ne xamaguñ ko rek ñu xam ko waaye sëriñ bi ku ko xam rek doo ko bañ waaw ñu ngi ñaanal ñi ko xamagul rek ñu xam ko yal na leen ko yàlla defal yaram parce que ku ko xam rek doo ko bañ mukk parce que boo xoolee kuy wane ne da nga koo xaw a bañ sax ci la yàllay gën a doxalee mbir mi parce que boo xoolee fan yi li ko gën a bëgg li ko gën a xam ci àdduna bi dëgg-dëgg su fekkoon ne yow mi nga xam ne am nga ñaari xel rek da nangu rek ñëw yal na yàlla dimbale ñëpp nangu kon dañuy jox ki nga xam ne dama koy wax toujours bu waxee rek fàttali mag ñi waaye bu waxee sóobaat ndaw ñi ci yoon boo xamante ne ni ku ci awra dëgg a jëriñ mooy sunu baay a naatu ko rasmi bay alaaju Souleymane Ba waaye moom it di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ci wér bay alaaji yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér waaye lépp loo ñaanal nit yàlla na ko yàlla nangu rawatina alxalifa Cheikh Ibrahima Ba kon ñu jox ko kàddu bi bay alaaji kàddu gaa ngi bismillah wa rahmatullah ñun ñett nañ xam di wax alhamdulilahi rabbil alamin ñetti yoon الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين di ko awalan di borom xam-xam di di di ku baax di ku xam kàttan di ku nangoo tànn kilifa waaye ku nangoo topp kilifa taxoyof lool te yàlla réyal ko nag lool fa tabaarakallaahu ñu ngi koy ndokkeel di ndokkeel suñ bopp di sant yàlla ci waxam ji lool macha allah di ndokkeel suñ doom Muhammadul Moustapha Basiru aarifi billah ku jeex ci yàlla ku jeex ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ku jeex ci Cheikh Ibrahim nias waye ku jeex ci Cheikh Ibrahim Ba di kuy liggeel pey bi ta làmmiñ lamiñam wi du dukki mukk di tudd yalla ci guddi ak ci bëccëg amul joti wax sax ñu koy ndokkel ci waxam ji am ci mbekté lool fa tabarakallah di ñaan yalla mu saxalal ko ta sam ko ta sam ñi ma jiitoole di suñ doom Amadul hadi doomu alaaji baabu ba waaye di doomu tafsir moot ba mii taawu alaaji maas alaaji baabu ba tànnal ko boppam taf ko ci boppam di ko dimbale waaye di ko digal di def lépp loo xam ne mi ngi koy wax daf naan waxal xaaji ne ko nangam nangam wax dëgg yàlla xam na lu ko mënoon a fëkk moom mu Muhammadul Haadi waaye yàlla dimbale na ko xam na lim doo xam na xam na fi mbokk boroom xam-xam la bu sell nit ku xoyof waaye nit ku bëgg lu baax am na xew bu amoon këram ñépp di ko tagg ci mbaaxam man ma ne ko fa ñukk ni yàkk bu naqadi tagg ndeyam mi nga xam ne moo ko liggéeyal lim am Mamadou Hadi ñu ngi lay ñaanal yàlla fan ak wér yéen a ngi bëgg a dalal nag sama xel ci keno yi ma gis ñu wër sëriñ bi tey ay ndaw ni ñoom te xam wacc seen ak mbëggeel bëgg ko te yàlla tax fas ko xéenaa liggéeyal loolu danay dalal xel de sama xel a ngi gën a dal bu baax sëñ Moussa Ndaw ma xam ko lool yàgganda Cheikh Alaj Baaw ba ñuy dem kër baayam sëñ Moussa yàgga dox Kaffrine Ngodiba musuma gis Moussa Ndaw dugg sareet wala dara te booba oto xamu fi sooy dem dajeeg moom sooy dëpp dajeeg moom booba day dara yombut sa bàyyi noonu la doon def Moussa Ndaw ma xamal la ko xamoon nga ko ah Adama Adama Ndaw Adama Moussa laay wax doomu Adama Ndaw xam naa ko bu baax a baax ñu ngi lay ñaanal yàlla fan ak wér sa wax ji ci sa xol bi nga ko tibbee te yéene nga ko te bëgg nga ko waaye ma wax la ne ni nga bëggee woon guddi googa noonu la mbooloo mi yëpp bëggee woon am na ku ma wax ne ma guddi gi dama jënd war ga ak suukar ak meew ne gaa yi nag baraadu bu jeex rek tegaat leen ba bëtt koo ko dee kontaanoon na te sori na fi lool fa tabaarakallaahu te moo ma wax ma lool ma bëgg a dalal seen xel yéen ñëpp Moussa Ndaw ne na bàyyi du juum waaye yàlla it dee du juum te yàllaa def te yàlla buñ jéem buñ ko jéem a dindi yàlla buñ ko jéem a weddi yàlla nañ ko gëm yàlla nañu yàlla boole ci ñi ko sopp te dundal yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu di wax mbokk yi toog yëpp ne leen benn misaal de yàgg naa ko nettali ci Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu dafa wàcc Paris ci aéroport bi ñëpp di ko teeru ñépp def ni ngeen def nii bàyyi ngi dend ak benn xaritu tubaabam comme ni ma dendeeg sëriñ bi duma tubaab bi nag mu xool xool xool ba mu yàgg mu ne bàyyi waaw xanaa ñii da leen aye tux bàyyi ne ko loo gis mu ne ko mbooloo mu ngeen nii yëpp gisuma kenn tux mu ne ko déedéet ayewuma leen tux dañoo gis ne tuxuma rek ñu xam ne waruñoo tux gis ngeen wax jooju ngeen dégg ko baax li ma ci bëgg a wax Cheikh Ibrahima ba mënut a wax ak ku ne mënut a ci lu ne amul droit ci wax kii bakkale waaye nag ñun war nañu am xelam xool ko lum def ñu def lum ba ñu baax waaye loolu war nañ koo mën nag waaye toog fii naan ko lum ñuy wax ak lu sëriñ bi wax loolu du teggiin xoolal rek lum def def dégg naa Cheikh Ibrahima Niass mu ne suuf si baax na barke na nangu na lu ne waye manglen ngi len di wax ne xol len lu ngeen gis ma bay rek bay len mooy wax ji rek lolu ma ngi koy digal sama bop di ko digal ñëpp ci xeer ju fi jox nañ ma kaddu adala waye lama teunké wax je moy Cheikh Ibrahim lo diglé dana ko def lo téré dana ko bax dana ko balo sama ñooñ nit ku ne dafa xam fu ma xam ñeenti borne yi ma xam ba ñooña maa leen xilif lu Cheikh Ibrahima bëgg duñ ko def aw ma nag droit ci ñeenti bor nay jàmbur waaye am naa nag laa bi rek digal ko mu jéem wut mbaax foofu laa tënk aw ma sonn ci wax jeeg jëf ji ku bëgg li mu bëgg bëggaale naa la ku bëggul li mu bëgg bañu ma la waaye mandu naa ci yow loolu mooy sama mbir Cheikh Ibrahima yëf yi nag dana metti ku li ñëpp bëggoon taamuñ ko ñaañaan ñëpp dañ la koy jéem a xañ waaye xam nañ li nga doo de du réere de alaaso du benn saaliwu bu baax baaba la min ko nettali mu ñëw fekk waa joo xam ne julli na fajar def la raatam ak yëpp ba tëdd baaba mu ne seytaan ñëw ne ko pëkk pëkk ne ko yow kat yaangi teud fi yalla jaangi xiin guddi gi dafay taw te taw bi dana mabbu sa keur te solo fekke nga faatu yaak sa njabo gi taxul ci guddi gi waa jene te dom yek seud yeeg ñep ñu toxu yalla ji taw ci guddi gi ba ma re tal keur gi yëpp mabbu maas mune ah bim xeye man de seytaane xamewuma kon bax waaw li mu digel mo mom dana ko ko laaj mu ne ko seytaane yow li nga defal ni biig yi nga ma indil ak teranga ji yow li man fogelu mo lo ko ndi ndeke yow ku bax nga mu ko ah loolu nga fo mu ko ah mu ko gis nga set wetch te bo de ci guddi gi dem xal jànn mo beug la toxal nak mo yalla li la lay non motax ma toxal la loolu bu len ko def ay lem mbir la de gis nga wax ji lepp bu ci ken xam soxla yow xamal soxla ci li nga bëgg rek Baye Niass wax na ne lu dul Ibrahima xëmb na dana xam doom wax nañ ma ko la tax nag duñ ko wax mooy dañoo xam ne ku ko wax ñu ne ngay fen ndax góor du ëmb du jur waaye lu dul loolu wax nañ ma ko Cheikh danañ la wax lu ne Cheikh Ibrahima danañ la def lu ne Cheikh Ibrahima dañ la fexeel guddi dañ la fexeel bëccëg Cheikh Ibrahima magi pay bi yëpp dañoo dajoon wax Baye ne ko Cheikh Ibrahim taxawal doy na sëriñ saa ci sa kaw buur yaa ci sa kaw noon yaa ci sa kaw mu ne leen na seen xel dal dégg naa ci làm ñu kudut fen mukk mu ne mbindeef loxool mbindeef muy loor doo ak si ci man loolu moo ne ci yow Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima la du soppeeku mukk misaal yi ma ciy jox wax naa ko bërki dem ma ne turandoor li tax mu baax salaatu faatee mooy musal ñëpp waaye salaat si ñuy ñuy bay ci sàddee bi du dugg safara mukk lu dem ci lu tàng te ku ko lekk lu loo ko lekk ndooroon boo fa bayee ko salaat rek ngay tudd ngay wax salaatu fatiha ko ko may Cheikh Ibrahima maa ngi wax ci baaxab yàlla waxewuma ci sama xawaaw nafsi de waaye billaahi yàlla rekk man ci yow dara ku dul yàlla mënul ci dara li nga xam jox nga ko jàmm yàlla li nga xam yaa ngi koy waxal jàmm yàlla yi fi nit ñi wutee lu baax yaa ngi fay dem di wuti lu baax loolu rek nga mën waaye lu dul lool li nga jëfal yàlla rek xam naa ne nag wax yi bëri waaye ma wax leen ne te mu wétt wóor daan naa ko wax te yàgg koo wax ku repp rek moo lay song ku bëgg a yàqu it moo lay song kuñ weer kuñ yëkkati ba ñëpp di ko séen ci ngoon dana daanu ci sa kanam nga gis salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf bay alaaji Souleymane Ba ay ilaahi lazi bihi nastaxiinu fajxal li ruuxa wal lisaana dawaaman wa fuaadi mata talawtu yeliinu تسعر الجلود واروح يسمو عند سكر الحكيم أو يستبين أسلكوا نهج بسريعة نهو الحق المصدوق وهو الأمين نبتدي عند حمده ثم نمدي نزهد الحق وهو جل المتين ثم تذكار وهدي وهو وعد من كرام وهو جميل المحين ونقض وعد عيدان رجحفه فالكفران حقا يكون حيث كنا بل له سجنا وإنا قد حد الناس وإله يحين حق قدر المقدار Ibrahima dundal ca wér wér amiin dokku micro bu baax yaay sunu wér amiin ci barke yaay soppe ndaw yi dundal ca wér wér amiin ci barke Ibrahima dundal ca wér wér amiin ci barke Cheikh Ibrahima dundal ca wér wér amiin ci barke Mbaye Niass dolil waay macha Allah yal na ngeen am jàmm lool yal na ngeen am sutura lool yal na ngeen am karange lool yal na ngeen am am barke lool yal na ngeen am karange lool maa ngi koy waxaat yal na ngeen am jàmm lool yal na yàlla yéwénal seen mbir yal na yàlla defar seen mbir li bëgg ci seen bopp sañu njaboot lu yiw lu yiwal lépp yàlla na leen ko yàlla defal dem gaaw lool na wërsëg yu yaatu wërsëg yu law wërsëg yu gaaw wërsëg yu sedd wërsëg yu dagan yu ànd ak njitlaay seeni doom yàlla nañ barke li ngeen jur yàlla na barke ci ndigg yeeg roolu li ci génn yàlla na barke yàlla nañ jub yàlla nañ am yal nañu xam yal nañ man waaye yàlla nañ ko fekkee yàlla nañu suñuy doom mën a aw affecté tali wuñ dara yàlla na ñëpp barke ci suñu kanam ñëpp jub ci suñu kanam ñëpp jëriñ ci suñu kanam ñëpp xam ci suñu kanam yàlla na ngeen bokk ci tànneef yi ci tànneef yi tànneef yi tànneef yi tànneef yi tànneef yi tànneef yi ba ci kanam yàlla na ngeen ci bokk na ngeen nekk ay awliyaahu yàlla na ngeen jur ay awliyaa yàlla na ngeen jur ay saalihiin ak i saalihaat yal na yàlla fajaaju yëpp yal na yàlla dafa ñu jàmm teraangaay àdduna liñ ci soxla li lépp yàlla na ñëw ci kër yu baax ñu xam ne ciment ak fer moo koy tabax ak weer yal na yàlla def ko ku ne na nga ko bëggee na nga dëkkee yal na la ko yàlla tabax la waruwaay yu baax ay oto yu baax yu mag yu dëgër yu rafet yu am jàmm waaye essence bu ngeen cay def yàlla na leen yomb yàlla na gaaw dépasse yu doy ñam yu tedd yu bari li ngeen ci bëgg lépp yàlla na ko yàlla def li ngeen bëgg ci seen bopp ci wér yàlla na leen ko yàlla rool yàlla na xel yi wér yàlla na jëmm yi wér yàlla na xol yi wér yàlla na poche yi wér yàlla na ngeen mucc ci njabar ak boromam yàlla na ngeen mucc ci xay ak boromam mboolem xeeti lor yi yàlla na ngeen ci mucc mboolem xeeti feebar yi yàlla ci mucc ak boroomam yàlla na leen dëdd aji jalgati yi yàlla na yàlla jaar seen digganteeg ñoom aji tooñ yàlla na yàlla jaar seen digganteeg ñoom boroom doole bu amul yërmande yàlla na yàlla jaar seen digganteeg moom xeetu feebar yi ci ay cancer yàlla nañ ci mucc jabet yi xeet yëpp yàlla nañ ci mucc bët yu naqareek nopp yu taxak daw fakastuloog xeeti accident yi yëpp yàlla nañ ci mucc accident ci oto yàlla nañ ci mucc daanu ci welo yàlla nañ ci mucc wax fakatulu daanu yàlla nañ ci mucc yàlla buñ pat yàlla buñ laggi tànk yi métti yàlla nañ wér yi méttiwut yàlla buñ métti bopp yi métti yàlla nañ wér yi métti wut yàlla buñ métti bët yi naqari yàlla nañ leer yi leer yàlla buñ lëndëm nopp yi du dégg yàlla nañ dégg ci zaahir ci baatin yi dégg yàlla nañ sax di dégg yàlla nañu yàlla sàmmal suñu diine bu ci dara yàqu bu ci dara tâche bu ci dara ayib suñu tariixa yàlla nañu ko yàlla sàmbal bu ci dara yàqu bu ci ayibal bu ci ayibal dara yàlla na ñu suñu fayda bu ci dara yàqu mbokk yi yàlla buñ yàqu mbokk yi yàlla buñ yàqu yàlla buñ yàqu yàlla bu yàq yàlla buñ yàq yàlla bu kenn yàqoo ci ñun yàlla bu dara yàqoo ci ñun réew mi yal na yàlla def fi jàmm Sénégal yàlla def fi jàmm na yàlla def ci teraanga adduna bi yal na yàlla def ci jàmm Palestine yal na fi yàlla def jàmm ñu ngi ñaanal suñu xalifa Mawlaay Cheikh Mahmoudul Mahi yal na fi yàgg lool ak mbooleem njabootu Mawlaana Cheikh al ak mbooleem kilifa diine yi tarixa buñ mënta nekk réew muñ mën a nekk gox buñ man a nekk taalibe yi muqaddam yi jëwriñ yi cheikh yi muqaddam yi président daayira président secteur yi ñi ci biir daayira yi ñëpp yàlla nañ am jàmm ñëpp yàlla nañ am jàmm ñu yéen a jàmm yàlla na am jàmm ku yéen a safaan yàlla na yàlla soppi sa xel soppi sa xol nga am jàmm ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp mucc yàlla nañ mucc yàlla nañ mucc yàlla nañ mucc ci lépp luy daal ñu ngi ñaanal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدينا الجمع اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم سبق ناس الحق بالأقوال إلى سبق ولي الخاتم أغلق والقاتم سبقنا سلاح الأقوال إلى صراط barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan